يا خير ضيف أتى بالبشر والمدد أهلا وسهلا وترهيبا بلا عدد mbokki taalibe yu baax yi mbokki jullit yi ak mboolem ñi nga xam ñi ngi nuy bàyyi xel ci jataay bi ñu ngi leen di nuyu te di leen siyaare te di leen balwaq waaye di leen balaq ñaan yàlla sun borom ba mboole nu jéggal ñun ñëpp danaa loolu sëriñ bu baax bii nga xam ne sunu sëriñ di sunu royteef ci diine lislaam ak ci yoonu sëriñ bi bi ñu laajee sayidatuna Aïsa jukko yu sallallahu alayhi wa dafa wax ne xuluxu alquran waaye sëñ sëriñ son yi bul xuluxu alquran moom ku tege woon tànkam ci sunna la daan xeñtu doxeenu sëriñ bi bu baax di ca dox di ca yar ak njabootam dégg naa ko ci làmmiñu boppam moo xam ne bu mu nekkee tuut tànk yóbbu nañ ko ci sëriñ bi ci njaareem sëriñ bi tàngal na ko ko ataaya moom moo ca ataaya ja nee na ko ndax xam nga lu tax ma defal la lee damaa bëgg nga nangoo jàng moo tax mu laaj ko Sëriñ mi nga xam ne moom mooy sunu royteef sunna rek la doon xëñtu ak alxuraan mos ko génn fenn ñi mu yar te doqi leen ci lool la leen sant la waxtu wu ne ay dénkaane mooy fonk toolu lislaam bi te nangoo jàng te nangoo yar njaboot gi sëñ sooy bu ci loolu la doon dund man damaa xam ni rek fekk mu ànd ak sëñ bi seen diggante yàgg na lool yàlla dogal na ba mu jàngee alxuraan ba noppi nekk Touba sëñ Ibu yi booba dafa fekk sëñ Mourou Moussa jële ko njaareem moo ko dem njàngam mu ñëw fii ci Touba tàmbulee jàngale bu laat ci boppam ba ko sëñ Mourou Moussa di indi moom la ko booleel ci ni so son baan mu jële ko njaareem ci saxaar mu ñëw loolu ci sëñ laa ko dégg at mooma ba ñu àggee ca kore ga lañu ñu tàmbali jumaa ji booba lañ ko natt ba ba bis ba dellusee ñu dagg dëgg ba bis ba dellusee ñu tàmbali jumaa ji loolu sëñ bi moom ko at moomee la boobaa léegi sëñ bi ci loolu la nekk yàlla déggale ko sëñ joxe boole leen itam xanaa xëy na loolu boole boole boole boole boole sëriñ bi bas lépp sëñ soin bu du ma ne lépp damay wax li mu jàng lépp ci xam-xam te sëñ soin bu ku ne xam na ni mu géej ci xam-xam ndax lim taalif ci téere xam-xam yoo xam ne ci ay waare la ak i dénkaane ak xeñtu sariya ak soññi ci njabootam bari na lool xam loolu xam ne waaye yàlla wane li mu jàngal lépp moom sëñ bu nee kenn raxuma ci moom seen diggante yàgg na yàlla moo leen boole bi sëñ ay bu di jàng fii ba yàlla dogal mu nekk daal raxmaan te teqlu ko ñox sëñ sooy bu da koy woo di ñëw ànd ak moom yàlla boole leen mu jóge fii sëñ Modou Moustapha bàyyi ko fi sëñ Bassirou jële ko Daaru ko njaarim it taxut sëñ soné bu doyal ci mu mu jege ko wax nañ ne am na ay jamono yoo xam ne dem na njaarim sax jëm na tiib fekk fa sëñ Bassirou ngir doon sàkku bëgg mu dimbali ko ci indi ko sëy mu jege mu jege ko ndax dañu doon wétali te bokk ak bëgg sëñ Chouaïbou Diop nee na ma maag sëñ bun san faran ci ab néeg dama koy yem ci ñàkk naan ndox moom mu di ma yem ci ñàkk ay nelaw nee ma moom moom ci bopp moom Chouaïbou nee na ma guddi booba li ma ciy nelaw du ma juróomi minute moom Chouaïbou moom ko teg ci aw lamiñam te booba ci jàng ak bin ak bind ci la nekk ci la toll booba bi mu noppee ci loolu itam samp jàngub alxuraan boo xam ne yorul ko woon kenn moo ko yoroon boppam. Hmm. jàng lu bari si njabootam gii nga xam ne ñu ngi teew mel ni sëñ Laat ak sëñ Mahmoud Mbouté moom ak. Hmm. nekk moo leen jàngalaat alxuraan ba ci wattu. Hmm. samp ba mu demee ba ba mënatu ko la fa samp ñoo ñi nga xam ne ñoo ko ci wuutu. di leen ci soññi guddi ak bëccëg. kon sëñ soñ bu moom ak bëggam. mooy li sëriñ bi bëgg. te sëriñ bi ak bëggam. mooy diine lislaam ak sunna ak nangoo jàng ak nangoo yare. suñ bu ku fonkoon sunna la ku bañoon ab jaxasoo bu bare la ngir sànq waxtu fu mu masaan ne ci kuy dox ci penj mi daana ko di nemmiku ndax moom xam na pexe yu muy def ba ku fi def ku fi jaar dana lu seen dana xam ci loo nekk garab yii ci penj mi teew naa ba tàyyi mu daggalu ko ngir bari ay nit ñu koy daje di fa toog loolu du benn yoon rek ay yoon la ko def sama kanam gis naa loolu mm-hmm. nga xam ne kon li ko ñoroon moom muy jàng ak jàngale ak yare jàkka ji nga xam ne moo newoon ci kër bi de ba muy nekk jàkka yi seng foofu ci buntu kër bi daanaa fa dem ci boy moo newoon yilimaan ji ba bi ñu ko tabaxee moo nekk yilimaan ji moom sëñ soin yi waaw la ko cay tee dem mooy dafa am ngànt sëñ bi wootu ko waaye su amul benn ngànt moom mooy yilimaan ba ni mu tëlee ba wuy ci borom loolu seere naa ko ci ak dundam kon sëñ soin bu aw rewteef la ci baax aw royteef la ci xeeñtu sëñ Tuubaa ndax moom lu baax dong ko ñor bañoon na ko ba ci mujjam dafa gàttal ab tànkam ci toog bi jàng ak a jàngale sëñ Basiiru wax nañ ne waxoon na ko ne ko soo bu dee mboolam la nu sëñ bi digaloon mel na yow rek yaa ci nekk mooy toog di jàng tey jàngale amul fenn yitte yitte te boobu nit ñi nit ñi ay yitte am àdduna moo la koy amee ndax yor nañ njaboot am lu ko war ci njaboot ga loolu tegtal la ci ne kon njaboot sëñ gi ñëpp dañ ko nanguloon lim nekkoon ñepp dañ ko nanguloon lim nekkoon ndax sëñ saay moom kenn du jàmbat ne lu tax gisuma ko wala dafay ñëwut te ñëpp war a seet dañ ko nangul loolu yi nga xane mom la ko sax borom bi moy tok ci na ci lam war nek nekk ak borom ndax dañu Basiru mi wax ci terem bobu muy minawul baxil xadim yi wax ne sëñ touba de talibi muy massa tok ci bunt bi diko xaar lu tay ba yag yag yag yag duñ ko jambat waye neena lako waral mooy nek nekkam nekk ca boromam loolu saa borom bu fanqale jàmbatal nit ñi loolu yi sëñ sooy ci loolu nag kenn du jàmbat ne sëñ sooy dama ko gis du fi ñëw wala daa bëri wuyite oo oh, ku ko soxla yaa koy seete ñëpp koy soxla te da ngay da nga ko gis mm. te moom mel ne gis kenn mm ngir bëgg na ci boromam te du ko dara te mel na ni ci njëlbeenu njëlbeenu mi na daana jànkonte ak ay jafe-jafe daana jànkonte ak ay jafe ay jafe-jafe yu tar ndax mas na maa wàcc wàcc booba dama doon toppatoo carte d'identité mu ne ma la koy ne ko di ñaari bu génnee dañ la koy laaj mu ne man mi mas mas nañ maa wàccee ci sahar gi ñàkk d'identité <laughs> ko wax mu ne te booba hmm. don yooyu ñuy joxe ci di mu <laughs> ay sumbal ak yooyu laa doon toppatoo <laughs> wallaahi rasul moom ma ko wax. xam ne ku toll ne waaye yàlla moo tëralee noonu jamono waaye du tee nag kenn ku ne sëb cër lay xaar hmm. dem na ba suñ borom ba kenn ku ne xam ne sëñ soy bu mu defe naa digg ma sëñ Tuubaa kenn doxu ci ab taxawaayam hmm. ak liggéeyam ak ak njàmbaaram ci lislaam ak ak ci xam-xam loolu ñëpp xam nañ ko ci moom amul jenn yitte jurul jaamu yàlla guddi ak bëccëg ñi taxawoo nag moom dëgg dëgg dëgg mm-hmm. waxtu wu ne guddi dañuy toog ba xaaju guddi ñu ànd ak moom jëm ci armée la mm-hmm. def nañ ko burul benn du ñaare di leen ak wër ni gaa yu di def mm-hmm. te loolu ci lool sëriñ bi daana yi de yaar ak laa sàkku soxla ci yéen jàng ak jub waaw ku ko ci def sa taraanga yi àdduna ak sa juj àllaaxira maa la ko gàddu daal cee teg na ko njàng mi kat xam araf yi dong laa leen def waaye barke bi moom maa ko yor loolu dénkaa ne sëñ bi lépp lépp moom moo ko yor yow daal jëfeel ndigal li rek nanga wala jàng mi nga tolloo si jàng tegal ci sa sa tànk ci siraatal mustaqiim fi ci yéene tënku ci yoonu jub ajees na nga bàyyi koog sëriñ bi ñu ngi koy sant te di ko ñaanal yàlla sama ba gën koo taxaw taxaw comme njabootam ci gannaawam lu mu sumboon ci lislaam sa borom ba àggaleel ko ko te may nu tawfeex te taas nu ci barkeem ci barkeem sëñ Tuubaa jërëjëf wasalaamu aleykum wa rahmatullaahi taala wa barakaatuh asalaamaaleykum wa rahmatullaahi taala wa barakaatuhu ñu ngi nuyu mbokki jullit yëpp di nuyu mbokki taalibe yi tey jii ñu ñëw di waxtaan ci jëmm ju tedd ju màgg muy Cheikh bu Mbacké di jëmm joo xam ne yaakaar naa liñ ci xam lépp ñu ko toogan di ko wax mën nañ fee yendu wala ñu fanaan fi te du tax mu jeex waaye na xanaa dañ ciy tënk tuuti rek ay kàddu yoo xamante ne bii ah dañ koy sedd ci liñ xam ci moom Serigne Souhaïbou dafa nekkoon jëmm ju tedd Nek jëmm ju sel nekkon jëmm ju ragal yalla jo xamanteni bi bo mo san saan jàkkaarloog moom rek da ngay dal xam gis lolu ci mom nekkon tam nituk sunna ko xamanteni bi da ko daan dundu te fonkon kep ko xamanteni bi eh, nitu sunna nga war nga nek nitu dara kuma san ñew ci mom di borom xam-xam itam daan la teral ngir xam-xam ba nga yor tan la teral tam ngir diine kon muy jëm jo xamanteni bi ah le serigne touba waxon dal ci kitab rabbi kana li wukkantu lahu walillaahi bi sakantu kitab rabbi kana li mom xeyna na jagleeg Sëriñ Tuubaa la ndax gis nañ nim daan jëfëndiko alxuraan ci mbindam ak lepp lu ci ma lu ci masaan soob rek na ko alxuraan déggale woon waaye wakkuntu ja nag nekkal gi mu nekkaloon alxuraan moom dafa mel ne moo feeñ ci sëriñ Sooy bu Mbàkke waaw ndax sëriñ Sooy ak dara ba mu toogee nekkal sëriñ Tuubaa nekkal kenn gis ko muy yëngul ci lenn loo xam nekkul alxuraan muy dem fenn foo xam ne boo fa demee doo fekk alxuraan kon nag jëmm ju mel noonu buñ koy fàttaliku léppam ci alxuraan la mhm. ndax li yàlla suñ boroom wax ci sahru ramadan la si unsila fi alxuraan huddan li naasi bu bay naata minal hudaa wal mhm. loolaatam mooy lim mu doon dund mhm. daan jubal nit ñi di leen tàqaleel ak njub ak leneen ak safaan sañ sooy bu dundam gépp ci loolu la ko daan def kon nag bu ko yàlla booleeg weeru koor muy weeru alxuraan sëriñ Touba feddliwaat ko eh, am lum ko dénk ci alxuraan te loolu mu doxal ko doxalin woo xamante ni bii feeñ na ci njaboot gi yëpp feeñ ci taalibe yi ndax liggéeyu sëriñ Touba ci alxuraan eh, sëriñ sëriñ bi ci alxuraan muy liggéeyu sëriñ Touba rek ndax ñun ñi tey jii bari na njabootu sëriñ bi ñoo xam ne xamante nañ di demalante ko fekk fekkalante mm. te lépp liggéeyub sëriñ Souhaïbou bi moo ko waral mm. ndax dañu daan boole ñu nekk ak moom mm. mu ñu yaral boppam di tërbiya di def ci ñoon alxuraan ak yar loola tey jii ah yaakaar naa feeñ na ci yoonu murit bu baax a baax ab liggéeyam aw nekkee itam boo ko mosaan seetlu dafa mel nekk nekkinu Serigne Touba ndax tey ji boo boo demee boo demee njaarim ñu la fii la Serigne Touba ne woon na Serigne Touba dëkki woon ak eh, ay kilifa ay seex ay lu ne tey ji boo ñëwee pencum sëñ Souhaïbou penc mu ne mën nga faa dem ñu la eh, kilifa sàngam wala sëriñ sàngam moo dëkk fii ak njabootam ba mu des Serigne Souhaïbou waaw Serigne Souhaïbou moom fa mu dëkk boo fa demee la fa njabooti ñeneen am sax ak njabooti amuñu ko fa waaw ca dëkkin wa ak lépp ndax yëmuloon ci tërbiye njabooti sëriñ Tuubaa waaye da da leen daan jàngal ba noppi yar leen ñu ci bareeta mu dëkkook ñoom waaw te loolu tey ji euh, euh, boo fa demee loo mën a gis la waaw kon nag mu nekkoon nit koo xamante ni bii daal comme niñ ko waxee rek soxna Aysa waxaan rek bañ ko laaj ji koy Seydina Mohamed mu ne mooy mooy alxuraan moom itam daanaka mën nañ ne alxuraan ju doon dox rek la waaw ci jëfam ak jëmmam ak lépp loo ci xool rek gis ci alxuraan waaw ca set ga ak sell ga ak euh, fi muy dund set gam fa daan euh, nekk nga xam ne li àdduna laaj lépp da ko dafa da da ko daan def foofu moo moo muy ina laaxa tayib laa yuqbal ila tayiban waaw loolu lépp mu ngi woon ci la ko wër képp kum daan jàngal itam daawul yem ci rek di la ko jàngal nii waaye dala daan li li li alxuraan di jëriñ waaw muy fii ci àdduna nga xam ne boo ci nekkee dana la fanqal ci lu bari dana dox si digganteeg lu bari loola dala ko daan waxaale di la ko jàngal ba ci fii jamono toll fu jamono mën a toll rek njàngum suñu soñe bu soo ci tënkoo rek dana la uh, fanqal lu bari ci àdduna waaw ci jamono du la raw te jamono du la raw ndax moom mm-hmm. daraan toog yow di waxtaan ak yow naa la jamono ngi ñëw joo xam nii lay mel mm-hmm. ak nii waaye boo ci àggee mm-hmm. na na nga doxale nii di def lii di bàyyi lii ndax su boo lu àdduna uh, soppeeku lu àdduna yàgg-yàgg itam lii rek mooy li am njariñ lee mooy li nga xam ne amul njariñ nga xam ne kon ku tënku ci waxam wala nga tënku ci jëfam rek mën nañu ne fu àdduna toll rek wutal na la ñàkk boo xamante ni bi dina dox sa digganteeg lay lore ci àdduna. waaw mel na ni bari woon yërmande la eh, ñu koy nettali ci moom. waaw yërmande sëñ Souhaïbou de moom mënees na xam fan la yem. ndax eh, dem na ba yemaliwu ko woon sax ci doomu aadama yi far. ndax kër ga sax. Hmm. njanaaw yi nga xam dañ daan naaw sax daan leen fi wutal bërëb yoo xamante ne bii. Hmm. buñ maree wala ñu sonn day ñëw foofa hmm. eh, di fa dimbandikoo hmm. rawati nag doomu aadama yi hmm. ku fonkan ku fonkan fa fii garab waxuma la eh, jël naa garab docteur garab yi garab yi nga xam ne suñ borom da ko eh, def ñu koy jëmbat ci àdduna mu am njariñ nga xam ne lépp loo xamante ne bi njariñ la mi ngi ci biir garab yi sëñ Sonia bu ko ko fonkoon la ba fi mu ne nii rek boo demee këram da fa fekk fa façon garab yoo xamante ne bi daanaka boo eh, li nga koy gis feneen bëriwul waaw waaw te ba mu ko fay def boobu jamono eh, yàgg na waaw kon nag moom eh, mbirum wér gu ak faj lum yàgg itteewoo la ñi nga xam ne Serigne Touba bàyyoon na fi seeni seeni wayjur njaboot Serigne Touba lañ woon te nekkoon feek moom jëlan na seenu njaboot gën nga xam ne ñoom sax la gën a fonk ci njabootu bopam rawatina nag ñi nga xamanteni bi e, ñun ñi nga xam bi suñu e, wayjur di genn aduna àdduna xamuñu leen woon waaw ñun señ sañ bu lañ xam ndax mo ñu yar ci ci kiyam lañ ñaro waye ñu nim ñu jappé won woon mosuñoo yëg benn yoon ne suñu wayjur nekkul nekkul ñun ndax li suñu wayjur war def ci ñun si ñun ñepp def na ba def ci lu ko ëpp lo xamanteni man amana sa bu fekkene suñu wayjur mi ngi fi woon du ci ag amante yin yërmande tam joo xamante ne bii yërmande la joo xam ne amaana tam bu bu doon suñuy way juru nga fi mën na na faa bañ a ak ñun mm-hmm. waaw fonk ñu dëkkoog ñun itam dëkk yu woo xamante ne bii mm-hmm. ah euh, xëy na bu bu bu boobu bu doon suñuy way jur mi ngi fee tam mm-hmm. mën naa am dëkkuwaay mi yi mu doon sonn ci ñu naka def ma ma ma mën nañ ko bañ a am kon moom dafa jëlal njabootu sëriñ bi yëpp aar leen uuf leen yar len jangal len ba pare yor len kon mom wax deug yalla wet mom euh sant yalla rek kep ko xam daal sa yàlla la nga masana jaxasoog mom ah sun borom dimbali na la ndax bàyyi na ceew bari bari lip, ah, ñim yar ñu xam ko deug deug itam amna lo xamni sun borom musal na ci te lepp yalla ak euh, barkemu ak jëmmam ak ni doon yare nit ñi loolu moo ko waral ah, mbokk yi noo ngi leen nuyu turu sama sama kilifa gi muy sëñ Cheikh Ndiaye nga xam ne buñ dee wax si mu Maam Lamin Ndiaye mooy toog jot toogaayu suñu Maam Lamin Ndiaye suñu Lamin Njaay nag ku am ne nañu dégg na ko ci mag ñi àndoon sëñ sëñ Tuubaa la bokkoon ci moom mii moo fi toog toogaayam li waxee noonu ko wax ci ci ci ci ci làmmiñam sëñ Sonia boobu nag day doon jëmm joo xam ne ci kon naqare waxtaanee ku neex a waxtaanee la muy jëmm joo xam ne kenn la ci njabootu sëñ sëñ Tuubaa mu doon koo xam ne kii. liggéeyam bépp lislaam diine rek moo ko taxaw na jóg ci ci la nekk ci la yëngu ba mas naa am ma ne fàttaliku benn am néeg bu ñu doon ko foofu ci kër gi ñoo donge ba sëñ soxna bu jaay ñëpp ñooñu mu boole naa ku ñuy wax Baye Sëriñ Seck Baye Sëriñ Seck waaw yaakaar naa ku ko ci soxna bi xam nga ci moom dégg moom lañ boole mu ñu fetiñ di peteñ ba waxtu takkusaan jot ah soxna bu jaañ am ñoo xam ne ñu ne maanaam dañoo continué moom julli jiwuñu bu mu ko gëstoo nag ba xam ni ah, lool am na ci laa wax suñ sekk ni ko loole li nga xam ne bu ñu tàmbalee ba buñ bu ñu nootee ba bu ñu dañ fi dañ fi rek nañ ko teppi ba mu set waaw nii la ko waxee nañ ko teppi ba mu set waaye te julli ji waaye te julli ji doo ko tàmbaliwaat loolu lañ ko def waaw buñ masaa dem ci tool yi itam bo xam nga jamono far farmanku jamono far farmanku boobu daa fekk boobu dajante waxtu koor daa wax mbàkke ñi ni ko boo demee neel fare dajalee fare ni leen ku mën a boole koor gi ak liggéey na ko def ku ko mënut na bàyyi na bàyyi liggéey bi te lii moom laa leen ku ko ci deful nag ah na la woor ni jotumaa moom dara sequ maa ngi noonu sa ni ko lu fi saytaane la fi nekk mm-hmm. nii la ko daa wax waaw ah, am na beneen boo xam ne mu itam fekk boobu ñu ñëw ci penc mi ne foofu ci gis gi mu seen kenn ci yor ab jaatu di peñewoo loolu na fi gën a mu woon ba mu dikk moom it waxtu bu bëccëg la moom itam noonu lan def danaa dem taxani daal ba ba ñu yeddee ba nag wax na lu ne lu mu wax lu wax wax na ko. ngir peñ ngir peñewoo. waaw <laughs> daal di dem xam nga bul ma sàkki rek danaa dem leen taxaw dem suñ say yooyu boobu noo ko yéene ko der Salaam ko soxna may foofu lañ ko yóbbu muy liggéey rek bi mu yóbbu leen ko fa ñu yóbbu ko ñu ko fa yéen dëkk ni ngeen doon mbéyum nag nga xam ne moom moom moom bëggutoon kenn koo xam ku toog loxoy neen daal moom daana wax naa grand place yi ngeen dem di bu ngeen xamoon li ngeen fay jëlee da ko mayandi ko ne gara eh, wata di ko na ngeen koy mayandi ko lu ngeen man daana ko daana ko digle daana wax itam am na at boo xam ne mu daa woo sëñ Mor sëñ Mor may Mamar rek la ko daa wax waaw ah, mu ne Mamar rek la daa mu ne ko Mamar na nga dajalee fere yi boobu na ma ca tool xamal ne ni fii du du seen kër ndey du seen kër bàyyi du seen kër ndey seen i waajur dañ leen a tàggul lu baax bëggal leen lu baax ñu indi leen fi kon nag képp koo xam ne nar nga fay nekk di taxawaal nga xam waru narawul ci sama ndigal la gën nga mooy dellu say bokk wala nga dem taxawaalu ci waaw lii ko daa wax ma lu ko mooy rek maa ngi moom dara saytaan ngeen fi nekkal waaw ban wax naan képp koo xam ne kii dem na ci mbir mi sax mu ne dangaa nekk foofu di xuro wala nga xeex wala ngay carte wala nga fekk fu ñu carte wala nga laal ko ci sa loxo lépp ku ko ci def seytaane nga fi nekk nekkaloo ma fi waaw kooku yéen dafa seytaane nga fi nekk nekkaloo ma fi fayoon na lool lool lool kuy dem ci ko jigéen te te léegi liggéeylu wuñ xam na fu mu sax képp koo xam ne kenn ngaa ci ko jigéen te wut tibu booy sàq mi wala ndox ndox booy naan na la wenn ruslu na tu nga ka tuddoo te diis li maali ci taalibe yi itam mas soxna ma soxna Fatou Gueye moom nga xam ne moo doon magi soxna Fatou Gueye mag Maguette Gueye xam nga ma nekkoon béy saa mu bu liggéey lu muy liggéeylu rek da wax te ñu ne ko nañ ma yebal Abdou Samad mu ñëw am lu mu fa doon defal ba maanaam lu mu doon liggéey lu fa doon liggéey ba maa demee ba maa demee ba liggéey ko ba na fa dellu mu laaj ma Ah, ah, ah dem ko ba ñëw ma ne ko waaw moom la xam nga moom bu laaj moom du du bàyyi dara daa mën a laaj a laaj a laaj ba nga xam ba ma njëkkee ma ñëw man ma ah waaw la doon def la ma wax ko la ma doon liggéey la ma waaw ba nga noppee nag lu la wax ma ne ko ah dama ne del booy bi nga nuyu ma si te santal ma ko xam sama xol ci li ma la def ma wax ma ah, ba nga demee doo fekk mu def ma ne ko dama ko fekk mu toog de mu ne toogee nu mu jublu mu ko penk la jublu ma ne ko comme comme fa nekkal ma ne ko ah, am na ñu fa nekkal waaye xamewu leen mu ndax dañ lañ doon waxtaan xam nga ca dara ma ne ko ah, tëkkuma ci benn baat de nii la laa ñoo benn benn parce ah. que takk nga benn baat ma ko wax dëgg tëkkuma ci benn baat de laaj laaj lu mu solo lu mu doon wax ak ñoom fa nekkal lépp. ñoom fu ma jéggi may dem fa di ko tàggu di bëgg a dellu Italie boobu foofu ci saal bu ñu saal montar yi ndax fekk mu toog mu daal ab der bu weex der bu weex bu weex tal bu mu gën a mu toog ci yo dool xasida ko ba noppi ma ko tàggu may dem na mun ma njaay boo demee na nga fonk diini bu baax waaw nga fonk sa diini bu baax loolu dama wax ñoo nag ma tàggoo nag ma ñaanal ma nag ma jaaral ci Abdou Lahad mu bindal tàggoo ko ma jaar ci sëñ Abdou Lahad boobu fekk boobu it xam li ëppoon ci li ëppoon ci la may def daal buub buub daal la ma daa daanaa ko def ab tamit di di di buub hmm. muñ ma li tax ma di la def loolu kat sa maam kat sëñ Tuubaa da ko daa bëgg loo ci njaareem